mbokk yi yëf yi jaxasoo na de coow li bari na Sénégal réew mu xat la mu tuuti waaye problème bi ñu am bépp mooy ku ku ne yaay jàpp ne yaay waaja secteur fi la wax secteur politique dañu am problème sect mais bopp borom xam-xam yi dara kenn rawu leen moo tax nee naa bépp borom xam-xam buy waxtaan di soññ gaa yi ci safar ñuy màggal te doo safar top safari rek nan dama xat demon na safar sangam defoon na safar sangam ta bu demé Touba do jënd nak do magal gis nga garam bu bi nga defee woon plateau daw mom ngay solat déwén do ko yëg gaay yi bi nga laaloon daw ndax jangal gi nit ñi nit ñi magalé ba nopi mais yow magalo weddante bu melni ay bu melni ay waxante lu ñaaw lu melni ay fan lañu jëm أبجلت أبجلت المكان المسلم أقل المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يبدله أبجلت جلت المكان ينتبه عليه الصلاة والسلام نال أبجلت ما يكجلت مجتلر اللهم أغلر اللهم waaye bëggante ci kaw bañante ci biir fi bari na ko lay tàpp paso naan la sama waay ji te fekk ni ci biir portable ay wokaalam ngi joo xam ne yow la ciy xas benn waay la ko yónnee naan ko diw mii nangam yàq la ba noppi ànd ak yow bu la gisee noonu man sama waay nga yow sama waay ci dëkk bi fekk yàq na la bu yàq ah, réew moo xam ne koo yónnee vocal mu transféré ko keneen déggal li ma sa waay wax entre nous sa waay jël moom daal déggal gars yi sa waay waayam li wax entre nous koo ko yónnee liw entre mujj entre sa waay bii bi gànnaa ma ko yónnee maa ngi la ko yónnee déggal gànnaa wax ji muy wax ci vocal bi daal yónnee sa waay daal di koy déglu ne lee gànnaa wax na non sa waay maa ngi lay wax loo xam ne xoolal sama benn waaye ma ko wax nag mais nag bu gànnaa moo wax vocal bii di yónnee ko kooku daal di lii sa waay négal sa waay non il faut mu yónnee ko sama waay sa waay xool na yem suñu biir nag bul dekkoon na de da sama waay lu ma yëg bëgg nga yëg ko rek gànnaa ko wax yónnee kooku na waayam léegi entre nous fi muy jëm fi ne koy waxal mu naan entre nous ne nous neen rek waaye xamal ne doon na entre tout ndax yow waxtu wi mu ko wax yaa ngi xalaat koo koy nettaliwaat moom it bu noppee ci yow ku mu ko war a wax